oui salaam salaam gaay ñu ngi leen di nuyu di leen ziar oui di leen jox seen waa yéen ñëpp di leen bëggee waa di wax ne Pastef Italie ñoo organiser benn manifestation tey fii ci Bologna gaay yaa ngi ne la ci kanam ah waaw Pastef Italie oui partager maximum gaay maximum de partage rek live ba fële la ci kanam me dañu xaara ñu commencé live bi nii en attendant ñuy àgg waaw patriote yaa ngi nii am na ñeneen ñu des si ginnaaw di ñëw booy partager maximum maximum de partage incha allahu rabbi Sénégal dina baax par la force te président Ousmane Sonko moo koy baaxal incha allahu rabbi waaw nii dëkk mel incha allahu rabbi suñu dëkk dina ko mel par la force waaw par A nag ou par B waaw parce que souffrance bi dafa doy mënuñoo am li ñu am yëpp ci ay ressources naturelles ci àdduna bi ba pare gën a ci monde bi loolu dootuñu ko nangu Afrique dootul nangu loolu changement day am par la force Afrique gépp nag du yem sax Sénégal kese waaw changement bi du yem Sénégal kese Afrique yëpp ay changé par la force Aujourd'hui, l'Italie, la France mel Allemagne Angleterre mel Suisse mel fane mel Sénégal avance, Guinée avance. beaucoup du Sénégal avancé Mauritanie nous Niger avance Afrique comme nous ko France Espagne la changer par la force partage partager maximum Hoi. jaajëf patriote hoi ñu ngi nii léegi ñu àgg ci manifestation mu ngi ne la gars leen vidéo bi maximum de partage ñu àgg ci manifestation bi maximum de partage incha allahu rabi Ousmane Sonko di leen ko libéré par A wala par B waaw te day bokk ci ay yi incha allahu rabi man gëw ma loolu ay Sonko du bokk gëw ko sax jaajëf. maximum de partage gars yi maximum de partage léegi ñu àgg ci manifestation bi maximum de partage waaw Sonko mooy suñu président incha allahu rabi 2024 kenn mënu ci dara bokk par la force la waaw ah, lépp lu mu laaj nag dinañ ko def incha allahu rabi waaw ah, tey soo gisee patriote yi tàngaluñu parce que dañu xam ne Sonko mooy suñu kandida mais bis ñu demee ba si cëppaandaw gi ñu ne ñu noo Sonko du bokk ci ay barki Serigne Touba di ngeen xam ne lépp la ah. maximum de partage manifestation baa ne gaay ma buttali lì di là vai Francia, le figlie orfane non sapendo procurarsi cibo per loro stessi o per loro prole, si spostano nelle vicinanze dei centri abitati per la facilità di procurare cibo per la comunità. oui gars yi yaa ngi nii manifestation baa ngi nii eh, eh, eh, grand wuri député suñu député Zigar waaw excellent macha allah jaajëf jaajëf waay Ibrahima bëggee naka mu lépp jàmm naka dóor jaa ngeen jëf te bëggee naka la nice naka dóor yi lépp jàmm naka la lépp jàmm naka waar nice naka dóor yi waaw không nakamu lépp jàmm sant nii rek waaye ñëpp a nga fa waaye ñëpp a ngi si jàmm jaajëfate sant sant sant bu baax jërëjëf nañ dem si ginnaaw organisation bi ñooy waaw ok Jangan jumpa. Bismillah. Bana yang matah hobi. Dan maju autorisasi. Dan maju autorisasi. Mailah kita tuh. mooy comportement yi ñuy am ci suñu manifestation parce que ku ne xam na ne renseignements généraux yi ñu ngi fi te dañuy xool suñu ay comportement te message yi dañ koy eh, mag naka la gën lépp jàmm naka la vidéo ah waaw gis nga rek billaahi way way mobiliser rek waaw lépp jàmm ñëw nga ñibbisi nga ci jàmm alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah prestation bi ñu leen a may. kon nag loolu maa ngi koy invité bu baax léegi dañuy jox Mouride moom moo koy tëj comme ni ñu waxee képp koo xam ne bëgg nga wax bëgg nga am yi nga xam ne ñoo nekk fii na ñuy circulé ay mbaxana comme niñ ko baaxoo def ngir jàppale détenu politique yi ku ne xam na métti métti ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy dund. te loolu lépp parti Pastef moom moo ko gàttal. kon nag bu ñu lu way mën rek bu kenn def dara bu numéro bu wéer a réeroo dañu ko dajale yónnee leen ko ngir ñu mën leen cee jàppale. Macky Sall. dictateur. Macky Sall. dictateur. Macky Sall. <laughs> eh Assane la. oui ça va. démb rek maa la xaar taxaw. naxee si affaire yi. naka dóor yi. lépp jàmm. alors waaw. maa ngi ci kaw. grand démb rek maa lay xalaat oui ça va a taxaw yow mi laaj nañ taxul nañ taxul mbooloo ok ok eh naka naka waa yaa ngi si koom ah yoro jot na ma jaar mu ngi dem jot na mu ngi dem wala ah ah suuf bi ana moom koy gis fii ah. non gisuma ko. le leader le leader de l'opposition au tey au niveau du Sénégal nous avons mille quatre-vingt-deux détenus loo xam ne amul fenn ci àdduna bi kon nag réew mi nga xam ne dañoo jàppoon ne réewu démocratie la dañoo jàppoon réewu démocratie de droit réew moomu gën réew kon dañuy sant Sénégalais yi waaye tey suñu nekkee ci États-Unis dafay baax tamit ñu wax mbokku italien yi a tëbila te mu nekk a jënd

le nostre sofferenze. Grazie per averci confortato della nostra lotta contro l'ingiustizia, l'iniquità, l'oppressione, l'ingiustizia. Il nostro paese Senegal, un tempo oasi di pace, vitrina della democrazia, vitrina dei diritti umani, è diventato un prigione a cielo aperto. I diritti più elementari vengono violati, calpestati, le libertà sono confiscate, limitate il terrore ambientato. La tua massiccia presenza dimostra la tua determinazione, il tuo impegno, il tuo dinamismo nel volere combattere il nostro tema Pakistan. La speranza di un intero popolo, di un'intera nazione, Ousmane Tonko, un convaincu convinto, camine sur les ormes de Thomas Sankara, les ombres de Patrice Lumumba, les ombres de Nelson Mandela, les ombres de de Sadim Amadou sur les hommes de ombre Seydi Haj Malik, les ombres de l'imam sur les ombres de toutes tutti questi bravi dignitaires. Usman Tonko che incarna il rinnovamento, il rinascimento africano, il risveglio delle coscienze e allo Il suo partito si scioglie, cari compatrioti, cari popoli africani, cari popoli del mondo, la liberazione è arrivata, i giovani devono affermarsi e assumere le loro proprie responsabilità. Ascoltate giovani del Senegal, giovani africani, il momento è arrivato di affermarvi e di assumere le vostre responsabilità. E stop all'immigrazione clandestina, e stop alle migliaia di africani inghiottiti nelle oceane per colpo dei nostri leader, le cui unica preoccupazione restano la, la corsa alla richiesta, il mantenimento dei loro familiari e tutto quello che vogliono come, come benessere. Niente è stato dato gratuitamente, niente è stato dato gratuitamente. Tutto è una lotta che da sola libera. Non lasciamo più i nostri scantinati, i nostri mari, le nostre foreste, i nostri depositi e altri mali attraverso i nostri campi corrotti e avidi. Cari compatrioti, la vittoria è vicina. Credeteci, la vittoria è vicina. Ci mancano solo sei mesi, tenete duro, il sistema caderà, inshallah. inshallah. Ancora più impegno, determinazione e fede. Il 2024 è domani. E Usman Zonko è il dono di Dio, il Dio che ci ha portato Usman Zonko che ci porterà inevitabilmente verso lo sviluppo, verso la rottura delle catene. Insieme vinceremo. Solo la lotta libera, come dice, diceva Thomas Sankara. jërëjëf mbokk yi jërëjëf di sant di leen amul dara ci àdduna loo xam ne tànk avere paura tey yaa nee nañu dañoo defar seeni liste bàyyi ko ci am bàyyi ko ci aéroport yi non abbiamo non abbiamo paura di morire te morire moo gën a métti dem kaso parce que nag ñun ñun ñi nekk fii ci diaspora bi xam na ne yàlla xam na ne mënal nañ suñu bopp bay mënal wax Sénégal c'est deux mille milliards yoo xam ne moom la ñu yónni chaque année on n'est pas seulement 4 on est 4 pour cent de l'électorat qui veut voter pour cent de l'électorat te 2000 milliards de l'homme nous sommes le tiers du budget du Sénégal tey suñu taxawoon Sénégal taxaw kon nag te débet affaire Fawura nañu def seen i liste bu kenn ragal bu kenn tiit que Wuri Diallo mu ngi ci liste bi non non centre un kaabolo que Sophie Ndiaye mu ngi ci liste bi non centre un kaabolo que li am solo moom mu neex ko mu naqari ko février 2024 ci la ñu abal incha allah kon nag dañuy dañuy ñaan allahu subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla tegal loxo Ousmane Sonko sàmmal amiin parce que am nañu yaqiin ne am nañu yaqiin ne Ousmane Sonko mooy nekk le cinquième président du Sénégal mu neex ko mu naqari ko kon dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp li ñuy ñaan nag les patriotes il faut qu'on évite képp koo xam ne daf ñuy dugal ci ay waxu caaxaan benn kaddu moo am mooy le kaddu du parti parti bi wax jaar ci coordination yi coordination yi jaar ci section yi section yi wax ci militants yi préparons-nous préparons-nous dans un mois dinañu commencer les parrainages parrainage bi nag kenn ñëw di wax ne coalition nangam ak kenn moo war a wax muy Ousmane Sonko wala le bureau politique ñu wàcce ko li ñu gëm moom mooy ne dañoo war a am 3 millions de parrains 3 millions de parrains ba xam ne Le 25 février, à midi, Sénégal à Gaspora, qu'on fête la victoire de la mort du système. Libérez Sonko Libérez Sonko Libérez Sonko Libérez Sonko Macky Sall Dictateur Macky Sall Dictateur Nous voulons mbokk yi le 9 juin le 9 septembre le mouvement national des personnes portant handicap dañuy woote manifestation bu mag fële ci Genève le samedi lay tombeel ñuy ñaan képp ku ko yàlla mënal ñu ànd fa Genève ànd ak nos frères et sœurs pour ñu dénoncer li nga xam ne mu am Sénégal jërëjëf la patrie ou la mort une yaakaar naa message bi jàll na te leer na te liñ ci mën a retenir rek muy lu am solo muy ñaar bi ci jëkk mooy lii nga xamante ni nii moom mooy Grazie. Grazie. Grazie. jërëjëf Gambia jërëjëf ñu tàcc waa Gambia yi ñu tàcc leen bu o a baax a baax a é a baax parce que vraiment seen présence fii lii mooy panafricanisme te na ngeen xam ni suñu para parti panafricaniste la parce que li ñuy xeex mooy ëllëgati si biir ñu mën a am unité africaine jërëjëf Didier wa kon dañuy jox Matar Ndong rek ndax euh, di nuru icon Akon ñëpp mi ngi nii euh, ñepp xam ko xam dëgg yalla ci combat bi euh ñing koy nuyu bu baax di ziar di wax Matar Ndong puisque yeen da ngeen a dem nga ñew jël kaddu di grand massificateur ki ngeen di gis massificateur bu maga maga mag wa mag la waaw moom moom Italie yëpp man nañu wax nak ak senegal vraiment momit bi mu jàppee ba légui bayiwul di xamanteni leppam da ko jox euh, parti bi nga xamanteni mom moy parti euh, pasteur kon Matar kaddu nga ngok waaw salaamaaleykum alaykum gay dama bëgg am lo xamné ne dama koy ñaan ñepp balaa may commencé su discours euh, so leen xone président Ousmane Sonko ci ginaam photo kan mo fa nek photo kan mo fa Sankara donc ñun ñepp lañu waxandoo la partie ou la mort ci wu la mort. nous vaincrons. Euh, ma ñëw nag gars yi wax Macky Sall ne ko xaar ma dindi sama kàpp bi comme ni ma koy waxee ñun diaspora bi ragaluñu Macky Sall ñun lépp lu ñu liggéey Sénégal lañ koy yóbbu. yaa ngi yore sa liste nga ne yaa ngi xaar ngir yàlla Macky Sall soo ñu tëjee soo ñu reyee jox ñu suñu ay mbokk ñu suul ñu loolu la ñuy ñaan Macky Sall amul sénégalais bu ragal sénégalais bu ragal amul diaspora bi ñi toog fi yépp dañuy liggéey dañu bay seen liggéey yëpp ñëw manifesté wu man nak sama liggéey duma ko sama wax duma ko ray yeen sénégalais lay waxal yeen ñi nga xamné da ngeen dugg ci ay euh section nek ci ay cellule nek ci ay responsable prenez vos responsabilités ngeen gënd gaay président Ousmane Sonko bu ñu gëna a quoi il a tout donné def na lépp lu wax na lu mu waroon wax def na lu mu waroon def gars yi lépp nax boo xam dañu ko doon nax leeral nañu ko gars yi fi ngeen di liggéey tubaab yi dàq ñu leen liggéey ñu leen xam-xam lan patriotisme seen ñun dañu am njiit boo xam c'est un marionnette Macky Sall la tudd c'est un dictateur Macky Sall Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall terroriste Macky Sall terroriste Macky Sall terroriste dara ñun ñun Sénégal daf jaral lu nekk suñu bakkat amul doomu aadama bu ñu mën donc balaa may wax bi du may wax gaay ne victoire bi comme ni ko suñu coordinateur waxee victoire bi soreetul mais ñu xam ñu xam ne gars yi fii li fi am nii mosul am ci àdduna bi mosul am ci àdduna bi ngir yàlla dafa am ñoo xam ne dañ dañ leen di fàttaliku ñun nag bëgguñu fàttaliku président Ousmane Sonko dañ ko bëgg a gunge mu mu mu yoral ñu Sénégal dirisal ñu Sénégal képp ku sàcc alalu Sénégal da indi ko merci beaucoup wasalaam maa ngi leen di ziare bu baax a baax di leen jaajëfal <laughs> waaw di wax ne nag bu leen fàttee concert casserole bi bu leen ko fàttee que tey Sénégal kenn ku ne ñun fii nag xëy na sañu ñu ko ah. def mais kenn ku ne nañ ko def ci sa néeg ah, te tawane ko te fësal ko. waaw léegi dañuy jox kàddu gi Babacar Diop mu wax ci li jëm ci détenus yi politique yi nga xam ne ñoom mooy xale yi nga xam ne tëj nañ leen fële ci Sénégal. Buonasera gente di Bologna. una chita...